ci département bu Mbacké bokk ci cadre APR yi waaye tamit mu nekk directeur général Euh, du service euh, national euh, de l'éducation et de l'information pour la santé mu nekk benn bànqaas boo xam ne maa ngi ci biir ministère bi ñu dénk wàllum wér-gu-yaram gi maanaam ministère de la santé euh, Lamine Bara Gaye ñoo ngi lay nuyu. waaw Abdou Khader maa ngi lay nuyu di nuyu auditeur ak auditrices yi nga xam ne ñëpp ñi ngi déglu rajo Réew mi FM ci Dakar ak ci li wër Dakar ci Sénégal yëpp. di jottali nuyoo également suma waa département muy département de Mbacké waaye di jottali nuyoo nag euh, suma kilifa monsieur le ministre de la santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr su ma ko nuyoo nuyu naa cadre républicain yépp di ko wax mu jottali ma nuyoo tamit son excellence monsieur le président de la République Macky Sall. Euh, Lamine Bara Gaye euh, comme ni ma ko waxee sànq yow yaay directeur bu euh, SNEIPS mu nekk ab bànqaas ci ministère bi ñu dénk wàllum wér gi yaram gi ndax mën nga ñoo expliquer bànqaas boobu euh, lan mooy liggéeyam. waa SNEIPS moom comme noonu ñu koy tuddee service national de l'éducation et de l'information pour la santé ab direction la boo xam ne bànqaas la ci ministère de la santé. Euh, service boobu nag moom la ñu dénk comme ni ko turam di tuddee lépp lu jëm ci éducation ak information éducation mooy di yar nit ñi di leen yee ci lépp lu gën ci seen wér yaram waaye di leen jox ay information tamit ci jàngoro bu ci nekk bu ñëwee naka la jàngoro bi di manifesté woo nan la ñuy def pour man laa dal bu la dalee tamit nan la ñuy def pour faj ko donc service boobu dañ ko rattaché directement ci cabinet ministre de la santé waaye service bi tamit mooy accompagner direction yi bokk ci ministère bi yépp bu ñuy def seen programme d' activité d' information d' éducation loolu si SNEIPS la ñuy jaar SNEIPS moo leen di accompagner service la boo xam ne nag euh, macha allah euh, gouvernement Sénégal teel naa am gis njëriñu éducation ak information moo tax ci année yu njëkk yi ci indépendance la am. kon fi ñu toll nii du service bees bu yàgg la amoon depuis daanaka première année indépendance yi ba léegi mi ngi am ci organisa organigramme ministère de la santé occasion la pour man tamit ma nuyu di ñaanal ñi nga xam ne ñëpp. nekkoon nañ fi directeur général du te yàlla def na tey ñu génn àdduna euh, am na ci ñu mujj mais am na ci ñuy dund ba léegi comme mon frère Racine Talla mi nga xam ne tey mooy directeur général u RTS nekkoon na directeur bu CNEPS ak ñeneen ñoo xam ne ay hauts fonctionnaires lañ ay docteurs lañ ñii ay psychologues lañ ñoo xam ne mas nañu jiite service bi. Euh, Lamine Bara Gaye euh, lu jëm ci euh, coronavirus bi doon nañu wax mbirum oxygène ak yooyu mais dafa mel ni problème bi dafa réglé wu wala lan moo ci xew. waaw xam nga lu jëm ci feebar bi moom li ñu mën a def mooy njukkeel président de la république ndax bi jàngoro ju jógee ci réew mi ci àdduna bi génn fële ci Chine Sénégal macha allah bi amee cas bu njëkk bi ca mois de février deux mille vingt le président de la république daal di jël ay mesures yu am solo. muy fexe ba nga xam ne Sénégal bokk na ci réew yi njëkk a am ñàkk bi pour xeex jàngoro bi waaye gannaaw loolu tamit président joxewaat ay instructions pour que ñu commencé nag communication bi ak information waaye bi jàngoro ji bëree ci réew mi tamit dañoo ubbi loolu ñu naan ay CTE maanaam centre de traitement des épidémies nga xam ne ci hôpital yu mag yëpp boo demee ñi jàngoro ji daal foofu lañ leen di fajee ci oxygène bi tamit ñu góorgóorlu ci lool ndax hôpital yi ñu am tey ñu ci bëri am nañ ay centrale d'oxygène maanaam ñooy toggal seen bopp oxygène bi ndax feebar bi médicament bi ci njëkk garab gi ci njëkk mooy oxygène bi parce que bu dalee nit ki ci xëtër yi lay jaar da lay empêcher ngay respi dootoo mën a am oxygène bu doy donc nit ki il faut ñu koy dimbale ci oxygène loolu moo tax nag ñu def ci ay central waaye teewul bi ñu demee ba nga xam ne feebar bi tar na cas yi bëri ah dañoo fexe ba nga xam ne ñu ngi liggéey nag ak ñi nga xam ne tey ay usine la ñu yore di togg oxygène ñu tuddee leen les gaziers ñooñu tamit ministère bi dafa am ak ñoom ay partenariat Euh, ba muy bañ tudd pour def publicité ay oxygène ay Sahel gaz ak ñooñu waaye ñu am ci ñoom it comportement citoyen ñoo collaborer ak ministère bi di ñu jox oxygène bi ak ah, ñuy liggéey ak ministère des finances di leen fay ba ñooñu tey sax premier ministre dafa jël décision intégrel ci CNG CNG mooy kuréel gi nga xam ne mooy xelal président de la république ci lépp lu jëm ci xeex bi nga xam ne docteur Marie Xemes moo ko jiite muy commité national de gestion des épidémies nga xam ne ñaat ñaari yoon dañ koy réunion ci semaine bi pour di xeex jàngoro gis nañ tamit ne seen commu euh, seen communication bi ngeen doon def dafa mel ni euh, dangeen ngeen ko soppi euh, gis nañ léeg-léeg sax dafa am acteurs yoo xam ne da ngeen leen si invité ci point Covid bi mm-hmm. ku si mel ni transporteurs yi gis naa ngeen invité si Gora Khouma et tout ça ndax communication bi yomb na communiquer ak askan bi. waaw yombul moom xam nga ndax feebar bi li ci ëpp solo mooy di yee nit ñi di leen jox information loolu moo taxoon te droit à l'information droit yu citoyen yi moo taxoon ministre ak président la République jëloon décision saa suñu xëyee ci télévision nationale. bu 10 heures jotee dañuy def direct pour di xamal ni ñi fi xeexu jàngoro bi toll. léegi nag bi ñu demaatee ci deuxième vague defoon nañ ci sax ab pose waaye teewul bi jàngoro ju jógaatee reprendre nañ ko waaye ba fi ñu toll nii ñu xam ne xeexu jàngoro bi du xeex boo xam ne docteur yi rek ñoo ko war a yore donc comme on di en français la riposte n'est pas que médicale mais elle aussi communautaire kon dañ ci war a boole ñëpp. loolu moo tax nag tey ci stratégie yi ñuy développé dañ ciy woo ñi nga xam ne ñëpp ñi ngi xee yëngutu ci xeex bi. muy acteur communautaire yi maa ngi nuyu moom frère Bayti Sam muy bàjjenu gox yi muy imam yi muy délégué de quartier yi ñoo ñëpp na kenn ku ci nekk li ngay def tamit léeg-léeg dañ lay invité nga ñëw jël parole ci wax ci ci communication bi li nga xam ne loolu ngay def moo tax tey boo gisee varié nañ ko jàpp naa ne sénégale yi bëgg nañ ko loolu tamit te gis nañ ne ñu ngi koy apprécier te ñu ngi koy suivre man tamit sama service muy SNEIPS dañ cee liggéeyaat ba nga xam ne tey communiqué bi bu ko RTS génnee rek sama service yi dañu koy daal di capter le le même moment multiplier ko ñu partager ko ci plateforme yëpp tey ñëpp ñu ngi koy jot grâce à CNEPS parce que CNEPS tamit dañuy liggéey en en direct avec euh, télévision national RTS parce que ñun ñëpp ñoo bokk tool bi ñuy bayee muy toolu audiovisuel public. d' accord euh, Lamine Bara ñu fàttali na yow yaay euh, directeur euh, du service de l' éducation et de l' information pour la santé mu nekk ci ministère bi ñu dénk wàllum wér-gu-yaram gi ci àdduna bi yëpp soo xoolee réew yu bari dañu am jafe-jafe ci communication ci vaccin bi ay désinformation yu baree bari daf ci am boo demoon Amérique am na fa nga dem France am na fa nga dem ci yeneen localité am na fa yéen CNEPS ban xeex ngeen si xeex ndax xam naa ne di ngeen weddi ba def ay communiqué ba sonn. waaw dëgg la xam nga monde bi moom léegi day dox ak loolu ñu naan internet hmm. internet dafa am ay côté yu mu baaxee am côté yu mu bonee tamit parce que am na ci ñoo xam ne ci internet bi la ñuy jaar pour di joxe ay information yu bon loolu ñu naan fake news waaye teewul suñu service ñi ngi ciy liggéey am nañ benn salle digitale boo xam ne commission veille bi ñoo ko yore ay jeunes yoo xam ne dañ leen a tàggat ci loolu pour que ñoom information yi xam ne ministère bi da génne ak surtout ministère bi ministère bi dafa am cellule digitale am tamit euh, une page un responsable webmaster ñoo xam ne ñoom ñooy gérer tout ce qui information digitale loolu moo tax saa su ne dañuy jël xalaatu docteur yi togg ko mu am signature ministère bi ak signature SNEIPS ñu koy partager pour que sénégal yi mën ko jot di jot la bonne information. mais est-ce que SNEIPS am na ay yeesal yu ngeen def wala nanga ko fekk woon ba tey euh, euh, ci ngeen ci ci ci ngeen dox. est-ce que ay maa ngi ciy góorgóorlu parce que ku ci nekk tamit boo bu ñu la denkee kër danga koy fexe tamit ba nga xam ne dana dëmpoo dëppoo ak jamono ji te monsieur le ministre bi ma nommé loolu la ma wax dañ ma jox feuille de route feuille de route bi mooy. fexe ba nga xam ne service bi maa ngi nuyu au passage agent yi nga xam ne ñi ngi fay liggéey yépp tey muy ay docteur muy ay éducateur muy ay agent yoo xam ne plaidoyer la ñu jàng ci loolu la ñuy liggéey donc service bi loolu lay liggéey léegi nag bi ma ñëwee tamit ah comme ni ñuy wax ci tubaab j'ai essayé d'apporter ma touche personnelle mooy fexe ba nga xam ne euh, service bi fi ma ko fekkoon muy unité audiovisuelle bi surtout mooy journalistes yi nga xam ne ñooy def reportage yi sur le terrain ñu fexe naa ba tey jii góorgóorlu ak i ndimbalu ministre de la santé pour que ñu renouveler matériel audiovisuel bi mooy ñu am ay caméra yu bees yu méngoo ak jamono waaye ñu defar benn studio boo xam ne tamit ñun ji danañ man di dalal sax ñi nga xam ne ay docteur lañ ay professeur d'université lañ seen xel màcc ci jàngoro yi danañ mën di leel dalal SNEIPS di réaliser ay émission di ko partager maa ngi xalaat tamit ci ëllëg ñu mën ci liggéey ak télévision nationale waaw waaw ñu ngi ciy xalaat yooyu yëpp du ko defee ñu mën a liggéey ak télévision privée yi tamit am ak ñoom ay partenariat pour que émission yi nga xam ne ñun dañ koy réaliser ci jamono wér yaram ñu mën koo jàllale tas ko ba sénégalais yëpp jot ko parce que man li ma jàpp mooy service ministère bu toll ne ministère de la santé ak li mu soxla ci communication lépp RTS ak journal télévisé RTS rek attanu ko donc ñun tey dañoo war a fexe ba wàññil doole jooju ñu sëf RTS ba si tey am studio de production man di réaliser ay émission parce que ëllëg si biir jàpp naa ne mën naa am du fekk sax man ma jóge fii waaye ëllëg si biir jàpp naa ne ministère de la santé war naa dem ba une télévision thématique boo xam ne ci wér-gu-yaram rek lay wax parce que Sénégal yi am droit ñu leen di yee te loolu télévision nationale ak programme attunu ko moo tax man tey studio bi ñu ngi koy équipé ah maa ngi fexe ba également ba journalistes yi ñu gën leen a améliorer seen seeni condition de travail pour que ëllëgi si biir tamit bu ñu paree nag bu jour studio bi paree ba nga xam ne mën na réaliser ay émission émission euh, studio bi nag day jumelé ak euh, la pla la salle digitale nga xam ne ay xale yu may tàggat ci informatique lay doon nga xam ne lu lu euh, studio bi produit rek danañ ko mën a tas wasaare ko ci réew bi parce que tey sénégal yi dañoo romb fu ñuy solee mu rek toog ci salon di seetaan télévision tey ñu bëri télévision ci seen téléphone lañ koy seetaan. donc sénégalais yi il faut ñu fekk leen fañ nekk sénégalais ba nekk nga Fongolimbi ba nekk ba Cekkeen ba nekk ba Koulikoro bu taalee téléphone am rek war naa jot ay information yu am njëriñ ci santé. kon yaa ngi de visibilité Seneps. waaw ñu ngi ciy góorgóorlu ñu ngi ciy bay suñu waar lépp yembagut waaye maa ngi rendre hommage aux jeunes qui sont avec moi ñi nekk ci euh, studio euh, audiovisuel bi. di ci liggéey euh, lemin Bara Gaye ñu wax ci campagne de vaccination bi fan ngeen ci toll ndax jàpp nga ne sénégalais yi jamono ji ñoo ngi ñàkk waaw macha allah ñàkk yi moom li ñuy njëkk def mooy sargal président de la république ak ministre de la santé parce que président moo jël décision fexe ba Sénégal am ci ñàkk yi waaye loolu tamit ministre de la santé. Abdoulaye Diouf Sarr di ko surveiller ànd ci nag ak suñu élément technique yi muy pharmacie nationale d'approvisionnement mais nuy docteur Seck ñoom ñooy fexe ba di malgré que monde euh, sur le marché mondial tension am na ci vaccin yi waaye ñun suñu réew fexe na ba am ay ñàkk bi ñekk yooyu bi mu yembee président rab li mooy joxe ndigal Air Sénégal nga xam ne mooy suñu avion bu ñu moomul suñu réew mooy naaw dem Chine dem Inde jëli vaccin yi indi ko bu ñu ko indee tamit suñu service dispositif bi ñu yoree muy la la direction de la prévention muy nuyu moom frère Mamadou Ndiaye ñooñu ñoo koy daal di tas ñu yóbbu ko ci région médical yëpp yóbbu ko ci district yëpp Sénégal yi mën cee jot donc ñàkk yi góorgóorlu ñu ci tey ànd ci nag ak une campagne de communication boo xam ne tamit sama service SNEPS ñoo ko liggéey ànd ci ak suñuy partenaire muy UNICEF muy OMS ñoom it ñu jàppale ñu ci liggéey bi muy Search Underground ñoom ñëpp vraiment dañu ci jàppale financé ñu ay sport ñu jàllale ko ci rajo yëpp tey kenn benn sénégalais néewul bu taalee teleem dana ci gis émission publicité buy wax nañ dem ñàkku ji bu ñu déglu rajo yëpp ba ci rajo communautaire yi nekk ci département Sénégal yëpp yóbbu naa fa ay communiqué sama service pour ñu génne ko Sénégal yëpp dem ñàkku ji te loolu la ñu ministre bi dégal ba tey jii macha allah gis nga ne ñàkk sax day xaw a manqué. Mhm. loolu mooy côté ba moom romb nañ ko. Euh, collaboration bi nga am euh, yeneen structures yi euh, ndax yow yaa yor lu lépp lu jëm ci wàllum éducation ak wàllum information seen relation seen collaboration bi na la demee. waaw relation moom macha allah dañuy li comme ni ma la waxee ñu ngi liggéey ak direction ministère bi yëpp parce que ministère bi tamit euh, appareil la boo xam ne day fonctionner kilifa gi mooy le ministre Abdoulaye Diouf Sarr bu ñu fa paree nag am nañ réunion de coordination boo xam ne bu fa ministre nekkul directeur de cabinet wala secrétaire général ñoo koy présider ak xemes nga xam ne mooy directeur général de la santé ñu naan ko DGS donc ñooñu ñoo ngëmb kuréelu ministère bi waaye teewul nag ñun au niveau opérationnel man damay liggéey ak les médecins chef de district ñu naan leen les MCR di liggéey ak les médecins chef de département waaye di liggéey aussi ak acteurs communautaires yi mooy ñi nga xam ne ay volontaire lañ di liggéey de façon citoyenne pour accompagner Sénégalais yi. ñu ñooñu dañ ci tibb tey yi. Euh, association des imams et oulémas du Sénégal maa ngi nuyu léegi lu nuyu imam Makhtar Ndiaye ak docteur imam Diène bu grande mosquée de Dakar ñoom ñoo ngi ciy jàppale parce que ñoom it dañu am ay représentants ci Sénégal yëpp. donc ñëpp la ñuy liggéey parce que xeexu jàngoro bi xeexu citoyen yëpp la mais mais yow yaa yor euh, éducation information information bi da ngay xaar nit ñi jël si ko. pour que jox information wala da nga leen di fekki jox leen ay information euh, ci wàllu wér-gu-yaram gi. waaw loolu laa la wax moom jàngoro bi moom ñun loolu la ñu wax ñun ñoo yore léeg ñooy le bras technique du ministère maanaam lépp lu ministère bi soxla ci communication war koo jox sénégal yi ci SNEPS lay jaar SNEPS nag day liggéey en collaboration ak rajo communautaire yi. di liggéey ak télévision yi di liggéey ak euh, les acteurs communautaires di liggéey ak imam yi liggéey ak délégué de quartier yi parce que ak imam yi ñooñu ñooy wax ak sénégal yi di liggéey ak waa jàngu bi chrétiens yi ñooñu tamit macha allah dañ leen dañoo bokk ci liggéey bi parce que Sénégal ñoo ko bokk. loolu la ñuy def pour que information bi euh, fan fan lañ teg lan nga ñu mën a fan lañ teg ba ne Sénégal moo jël premier ci Afrique euh, wala moo jëloon première ci Afrique xaw ma ba moo ngi koy jël moo jëloon deuxième au niveau mondial lan la Sénégal def boo war a mérité place boobu. waa li ñu def mooy boo seetloo Sénégal ci réew yi njëkk am ñàkk la bokk ensuite xeex bi ni ñu ko songee nga xam ne ministère sectoriel yëpp dañuy teew ci CNG bi ñuy partager information ak partenaires yi muy waa OMS parce que réew mi àdduna bi yëpp lépp lu jëm ci xeex jàngoro. organisation mondiale de la santé OMS ñoo ko yor. kon Sénégal ci collaboration boobu lay def test yi teel nañu ko jot macha allah li ñu boole ci tamit tamit am ay ay laboratoire de recherche yoo xam ne dañoo am label international reconnu muy laboratoire Pasteur muy laboratoire également IRSF bu Souleymane Mbuub nga xam ne liggéey bu am solo la def tey ci sida bi. ñooñu nag tey ay ñu boole ci également ak euh, suñu direction de la prévention nga xam ne Sénégal bu yàgg ba léegi ni dañu am tradition de vaccination di ñàkku xam ñun bañ doonee ñàkk don xale nekk ci àll ba njëkk ñàkk njëkk ñàkk pistolet la woon dañ la koy jam deret yi génn donc Sénégal dañoo yàgg ñàkk ba tey jii am tradition ñàkk loolu moo tax tey bi ñu defee euh, euh, évaluation au niveau mondial Sénégal ñu takkal ko ndam loolu te malgré que bëri nañ ay doomi Sénégal yu ñàkk seen bakkan ci feebar bi ñu ngi leen di jaale di jaale ñëpp di ñaan yàlla ñi nga xam ne actuellement ñi ngi tëdd ci hôpital yàlla dimbale leen ñu wér dellu ci seen njaboot waaye teewul na Sénégal def na ay jéego yu am solo ci xeex jàngoro ji. d'accord Lamine Bara Gaye yow yaay euh, directeur du service euh, national de l'éducation de l'information pour la santé mu nekk benn bànqaas ci ministère de la sante léegi am na benn. Euh, virus bu ñuy wax euh, Marburg la ñuy wax mu nekk euh, Guinée Conakry euh, yéen a ngi koy dégg ndax yéen a ngi jël seeni matukaay. waaw jël nañ suñuy matukaay bu baax parce que Sénégal dafa am loolu ñu naan la la pharmacovigilance maanaam fu ñu toll ak surveillance épidémiologique. Mhm. maanaam fu ñu toll dañuy jàngat feebar yi nga xam ne mooy génn ci àdduna bi yépp mhm. saa su doomu jàngoro génnee fenn rek dañuy jot alerte bi ñu daal di jël suñuy disposition fi may wax ak yow sax euh, altine maa ngi war a dem séminaire euh, Somone nga xam ne ñi ngi xalaat ak convoqué nañ ci ak les infirmiers yi nga xam ne ñoo nekk Médina Yoro Foulah ak Kolda gouverneur région de Kolda démb def na CRD ci loolu pour préparer xeex boobu ministère yónnee fa ay techniciens ñu ànd ci ak waa OMS donc loolu ñu naan nu sommes prêts pour xeex jàng doo doomu jàngoro boobu parce que jot nañu alerte yi au niveau mondial jël nañ disposition yi ci suñu frontières yi tamit région médicale yi nga xam ne ñoo nekk frontière muy ji Kolda muy Ziguinchor muy Tamba ñoo ñëpp gouverneurs yi ministre bind na leen lettre jël nañ seen disposition pour que ñu ngi préparer léegi nag li ñuy ñaan mooy ñëpp ñi nga xam ne yor nañ ko rus mën a ñaan rek yàlla dimbala ñu ba doomu jàngoro boobu mu dugg ci réew mi. d'accord léegi euh, ministre Abdoulaye Diouf Sarr fan yële si ginnaaw am na ñenn ci opposition bi euh, dañu doon wax ne dafa war a dañu war a tekki ndombal tànkam ndax euh, mbir mi daf ko ëpp doole yow lan moo ci sa xalaat. waaw jàpp naa ne quand même nekkul ne li ma nekk ak moom ci collaborateur yi ko gën a jege waaye xam naa fi mu teg xeex bi. parce que Abdourahmane jàngoro ju mel nii yàlla def la nga yore am confiance su président de République nekk ministre de la santé lu mat ñaari at jëluloo congé amoo samedi amoo dimanche foo toll yaa ngi présider ay réunion yaa ngi recevoir ay nit yaa ngi dem ay visite ci hôpital yi di xool xeex bi fan la toll loolu jàpp naa ne quand même ku mel engagement bu mel noonu ah ci ministre de la République euh, lu ñu rafetlu la te képp ku e ku ne bu nekk nga bokk opposition wala ngay sénégalais simple xam nga ne Abdoulaye Diouf Sarr xar na tànku tubéyam ci xeex jàngoro te loolu nag président de la moo njëkk joxe exemple bi loolu moo tax opposition nag moom suñuy xarit lañ c'est normal que léeg-léeg ñu attaqué ñu mais tout ça on le mais sur le compte du jeu démocratique réew noonu lay doxee démocratie noonu lay doxee mais jàpp naa ne quand même Sénégal def na liggéey bu am solo ci xeex jàngoro ji. mais est-ce que amul euh, yeneen adversaire Abdoulaye Diouf Sarr yu nekk ci biir benn bokk yaakaar ñoo xam ne ñoom tim dañuy nekk ci suuf euh, parfois di ci xëpp suuf. waaw politique moom ni ñu koy waxee on n'a pas que des amis foo mën di toll am na ñu bëgg am na ñeneen ñoo xam ne ñi ngi jéem a galgal mais ministre moom ab Abdoulaye Diouf Sarr comme on dit am na caravage bi il tout. chaque jour que jëfee ñun ñi nga xam ne nekk nañu ak moom loolu la wax liggéey leel rek bu leen séentu ñi nga xam ne dañuy sànni ay xeer ak leneen parce que boo tolloo ci liggéey doo toll ci ay waññante ay góom-góom comme niñ koy waxee ci wolof borom caq du xeex ak borom baatu nen jërëjëf euh, Lamine Bara Gueye euh, yow yaay euh, directeur du service national de l' éducation de l' information pour la santé léegi nag ñu bàyyi mbirum mbirum Covid bi <laughs> jombul leen peut-être ñu dellu siwaat ci mais ñu wax nag ci Lamine Bara Gueye responsable politique APR département bu Mbacké bokk ci cadre yu cadre yu APR yi. léegi fi ñuy njëkkee rek mooy élection locale yi nga xamante ni tey moom la ñu dëgmal. Euh, gis nañ opposition bi ñoo ngi teg li nga xam ne mooy ab euh, ab coalition boo xam ne moom gars yi yëpp analyse politique yi nee bu ñëwee moom bu dalee seen kaw euh, yéen Benno Bokk Yaakaar di ngeen di ngeen di ngeen nërmeelu coalition boobu xalifa Sall Ousmane Sonko ay Malick Gakou ndax nekkul coalition boo xam ne tiital na leen. waaw Abdou Khadre xam nga nag man ba ma jëlee ndombal tànk ba léegi daanaka sax li may wax ci politique bëriwul. waaye comme ni ko ministre di waxee rek bu ñu la wooyee tamit léeg-léeg la devoir t'appelle da ngay tontu mais li ma jàpp mooy Benno Bokk Yaakaar macha allah 2012 ba naga ni saa suñ sampee ndënd ak élection bu ñu dem ak gars yi dóor leen ñu daanu. élection yi ñu jëm tamit comme ni nga wax gars yi moom ñi ngi yëngatu waaye comme ni ñuy wax ci wolof jëm ca làmb ja di bàkku moom jóge fa di bàkku moo gën a wóor mais jàpp naa ne bu ñu yàlla dimbalee. ba mbir mi gën a wàññeeku xeexu jàngoro bi fi ñu toll nii fi ñu toll état day dox ñu ngi toll ci inscription ci liste électorale yi kon li ñuy wax man li may wax mooy wax sénégalais yépp rawatina jeunes yi ñu dem inscrire ci liste électorale yi yoon seen carte préparé nag. waaw mais ñu bari nee nañ euh, primo votant yi ak ñi soxla ay certificat de résidence yéen euh, yéen pouvoir bi yéen indi ay gàllankoor ndax dangeen a xam ne ndaw ñi ànduñu ak Macky Sall non loolu moom dañ koy wax rek mais amul benn élément scientifique bu koy prouver Abdourahmane ñun 2012 euh, euh, bi gars yi ne président Macky Sall du dugg Pikine booba waa PDS fi nekk am doole lool jeunes yi ñoo ànd ak président Macky Sall ba dugal ko Pikine ba fi ñu toll nii saa su président génnee gis nga tournée yi ay jeunes ñoo koy gàttandu ay jeunes ñoo koy gunge ñi ci ëpp fan lañ teg ba ne ñi am inscrire gud Euh, opposition lañu àndat wala dañoo contre pouvoir bi amul benn donnée scientifique bu koy prouver te li ma jàpp mooy carte d'identité jeunes yi koy wut wutuñu ko rek pour dem élection carte d'identité wote moo gën a néew ci doole liñ koy soxla wote daanaka par ñetti at par juróomi at lañ koy def alors que carte d'identité saa soo xëyee ngay jeune citoyen bu nekk da nga war a am carte d'identité te jeunes yi nga xam ne am nañ toll nañ ci am carte d'identité mais xanaa bëgg nañ liggéey buñ la yónnee tey ji am mandat xaalis sax pour nga retiré ko da ngay joxe carte d'identité bu la police arrêté ci mbedd mi au delà de minuit 23 heures dañ lay laaj carte d'identité donc carte d'identité kayit la woo xam ne citoyen bu nekk da ko war a am. moo tax état bi teg na condition yëpp tey gis nga communiqué yi mi ngi jàll télévision nationale publicité yëpp. parce que loolu dafa bokk ci calendrier républicain bi ministère de l'intérieur dafa am obligation def ay communiqué yee nit ñi wax leen ne leen inscription jot na. ku bëgg a changer inscription tamit jóge ci dëkk bi dem voté fële man su ma bëggoon tey jóge Mbàkke dem voté ji Taïba ba kenn mais damay dem changer sama lieu de vote noonu la ñuy def donc loolu c'est dans l'ordre normal des choses c'est le calendrier républicain. d'accord mais euh, yéen pouvoir bi est-ce que fi mu ne nii talu leen euh, coronavirus bi euh, ba taxawaay bi ngeen waroon a am ngir waajal élection locale yi ngeen bañ koo am. noo xam nga élection locale moom du affaire état central élection locale comme ni ko tur tuddee. au niveau locale lay jàll ñi bëgg a falu dendey guy gi ñi bëgg a falu ndakaaru ñi bëgg a falu Taïba Cekkeen ñi bëgg nekk maire wala ñi nekk maire te bëgg nekkaat maire ñooñu ñoo war a dem lijjanti fexe ba wax ak seeni nit fexe leen inscrire sur les listes fexe nekk kandida fexe ba président ëllëg si biir ak coalition bi bu ñuy tànn ñu tànn leen bu ñu nekkee opposition ñoo war a góorgóorlu ba seen parti gañe waaye élection local moom du état au niveau central kenn ku ci soo bëggee nekk élection Euh, maire yaay préparé parce que fi ñu toll nii maire xam nga changé nañ code électoral bi léegi maire c'est le suffrage universel ñoo koy fal ñi falu ci dëkk bi yëpp ñoo koy fal donc mbir mi moom foofu la te tey jii démb euh, ministère de l'intérieur ak parti arrêté nañ caution bi à 10 millions mhm. donc jàpp naa ne fi inscription bi léegi tey mu jeex mhm. kon kay li wolof di wax naan léegi tey bureau bi dem na bureau bi dem na kang xaw ma nuñ koy waxee. d'accord mais Lamine Bara Gaye yow nga bokk ci cadre APR yi est-ce ban taxawaay la ci cadre yi am non cadre yi taxawaay bi ñu ci am mooy noonu gis nga man def naa démb ci benn journal benn interview pour wax ne Sénégalais yëpp nañ dem vote yi cadre yi bëgg a nekk maire tamit nañ dem liggéey ci seen gox parce que man li ma jàpp mooy président de la République ak sémb yi mu sémb ci réew mi. dañoo war a contrôler l' état central comme ni ñu ko yoree waaye dañoo war a contrôler l' état jusqu'au niveau inférieur te loolu nag mooy collectivité locale yi te campagne yi élection bi jàlloon en 2014 sur le six cent et quelques collectivités seen Benno Bokk Yaakaar amoon na ci cinq cent cinquante sept yu teg te jàpp naa ne loolu lim boobu dañ ko war a yokkaat ci élection yi di ñëw d'accord mais xam nga yow euh, Lamine Bara Gaye gars yi waruñu leen may dara léegi mais yow Lamine Bara Gaye man su ma déggee ni ngay waxee ni dafa mel ni taxawaay bi ngeen war a jël dëgg wala waaj bi ngeen war a waaj élection yi dafa dafa dafa des te élection yi man jàpp naa ne dafa am ay enjeux yu bëree baree bëri ndax ñi nga xam ne ñooy opposition ñoom nee nañu euh, dem nañ ba nga xam ne Macky Sall nekkatul majorité te élection yii nii mooy élection yoo xam ne ñoom dañu koy fas yéenee gagné ndax buñ ko gagné président Macky Sall xelam dootul nekkati ci élection présidentielle 2024 non li nga may wax yëpp naan opposition bi ne nañ lii laa xam nga li am solo mooy ñun ñu ngi liggéey. yow da ngeen ne ñu ngi liggéey. non bu faale parce que benn adversaire kenn du jëm ci làmb di xeeb sa noonu. waaye ñu ngi préparé bu ñu yàlla mayee lu ñu bëgg bu ñu demee ci élection yi danañu gagné li ëpp ci ay maires yi ci Sénégal. d'accord léegi euh, Lamine Bara Gaye nga bokk ci cadre APR yi cadre yi nag euh, dafa am ko ko jiite koo xam ne ma ngi tudd Abdoulaye Diouf saar Euh, ci ndakaaru ñu gis ne euh, réew moo dem tamit capital bi euh, daf ci am solo maanaam mairie bi gañe ko tey ci Dakar ñuy tudd Abdoulaye Diouf saar lu bare bare bari candidature am ngir nekk mair bu dakaar d'ailleurs sax am na ay adversaires yu ñu ko doon tuddal ñu nekkoon ay ministre mais ñoo ñëpp gis nañ ne tekk nañ seen ndombal tànk mel ni que Diouf Sarr dañu koy xàllal dañu koy xàllal yoon ndax Diouf saar yor na profil pour mën a gañe mairie bi waaw xam nga nag euh, ñun dañoo nekk ci coalition te coalition bi dafa am njiit muy président de la république te jàpp naa ne bu ñu àggee ca préparation ba ah président mooy ak coalition Benno Bokk Yaakaar leader yi ñooy tànn ñi bëgg a nekk candidat maire du dakaar rek waaye ci Sénégal yëpp waaye bu ñëwee ci Dakar it jàpp naa ne quand même au politique nekku ne li ma ànd ak Abdoulaye Diouf saar wala lim nekk sama kilifa ministre moo tax ma koy wax waaye li ma jàpp mooy bu fekkee ne dañuy xool rek parcours politique ci dakaar kan moo war a nekk meilleur candidat pour coalition Benno Bokk Yaakaar ci Ndakaaru jàpp naa ne quand bu ñu tegee CV yi politique yi kenn waru ci raw Abdoulaye Diouf Sarr. léegi foo parce que fi ma ko teg mooy Dakar waaye xam nañ ko Sénégalais yi xam nañ ko. 2014 bi ñuy demee fii élection jàkkaarloo gars yi. Mm-hmm. coalition boobu ànd ak notre grand frère Khalifa Sall daanaka moo raafale woon lépp Dakar. parce que élection locale président République du dugg ci géew yi kon gars yi nekk ci suuf ñoo war a xeex mhm. waaye Abdoulaye Diouf Sarr moo porté drapo Yoff moom rek moo gagné woon ci 19 communes yi ci Ndakaaru donc kooku moo sigiloon drapo Benno Bokk Yaakaar mhm. te booba ba léegi tamit jàpp naa ne tey jii dans le département de Dakar euh, moo ci nekk tey ba léegi di continuer di nekk am confiance su président République nekk ministre de la République yore secteur bi gën a metti secteur de la santé et de l'action sociale nga xam ne secteur la bu bëri ay syndicat yëngatu yu bëri jafe-jafe yu bëri mais teewul dafa jàkkaarloo loolu di xeex ci xeex boobu kon jàpp naa ne bu ñu jëmee ci élection yi locales yi ñu jëm en 2022 président rappelé war wala tànn ak la coalition Benno Bokk Yaakaar ñu ngi leen di am confiance mais jàpp naa ne le meilleur choix pour dakaar c'est bien le candidat maire de Yoff muy le ministre Abdoulaye Diouf Sarr d'accord mais est-ce que tey président ba tey euh, Abdoulaye Diouf Sarr mën na di wéy di gagner confiance am président Macky Sall dem confiance ci moom euh, CVM politique tamit comme ni nga ko waxee mais ci biir tey euh, biir Dakar ci bi yeneen communes yi ak ci biir coalition bi ndax jàpp nga ne tey bu tabboon Diouf Sarr jàpp nga ne du am ñenn ñoo xam ne danañ si ñàkk ànd. bennoo Benno Bokk Yaakaar moom kër moom benn borom kër la am muy président Macky mooy tànn. te jàpp naa ne ah buñ ci eggee ah am maa ngi am yaakaar ne le candidat Abdoulaye Diouf Sarr lay tànn. parce que nag dañoo bëgg nag buñ tànnee nag tànn koo xam ne nag waa Dakar danañ ko bëgg. Mm. am na parcours politique bi APR danañ ko adopté Benno Bokk Yaakaar danañ ko adopté waaye aussi ndakaaru dafa am ay réalité am boo nee ndakaaru da nga ne penc yi. Mm-hmm. boo nee ndakaaru danga nga ne lébu yi. boo ne Ndakaaru da ne les acteurs culturels les acteurs du mouvement associatif les femmes les bajjenu gox imam yi délégué de quartier yi ah ñooñu ñoo yor Ndakaaru ñoo yore électorat bi te jàpp naa ne ñoo ñëpp segments sociaux yooyu yëpp li ma xamagoon fi ñu toll nii en terme d' information ñoom ñëpp tey ñu ci bëri def nañ ay déclaration pour wax président Macky Sall ne ko ñun bu ñu sañoon nga porter sa choix ci Abdoulaye Diouf Sarr te jàpp naa ne ah bu ñu ci yeggee président Macky Sall ah il sera sensible à cet appel là. d' accord léegi Lamine Bara Gaye dafa am ñu bari tamit ñu bokk ci benn bokk yaakaar ci gox yu bari yu wuute ñoo xam ne déclaré nañ seen candidature. waaw xam nga ci jeu démocratique lañ nekk tamit c' est normal euh, loolu may tuddee sama gars yi fële di leen tooñ waa Mbàkke léeg-léeg candidature Facebook yi moom bëri na lool <laughs> ak candidature WhatsApp yi. Hmm. waay nag élection du Facebook ak WhatsApp de moom. président Macky Sall mooy tànn te il faut ñu xool nag ñi ñuy tànn parce que mbër bala nga koo ngemb daf lay leer ne kii boo ko ngembee waa dëkk ba danañ ko woteel. waaw euh, mais est-ce que président moo war a tànn réellement est-ce que waruñoo bàyyi librement euh, gox bu nekk ku bëgg a wu nga présenté wu askan wa ndax yow ni la waa Mbàkke xamee. Macky Sall waa Macky xame wuñ ko noonu yow la waa Macky gën a xam ka ka ka Macky Sall. waaw lan moo tax mënuñoo bàyyi nit ñi librement ñu tànn seen maire. Oh, xam nga étape bi ñu toll nii mooy étape bu candidat à la candidature maanaam ñi bëgg a nekk maire dañuy wax ne ñoom bëgg nañoo nekk waxtaan nag liggéey ci seen ab dëkk président de la République ak suñu président coalition mais moo yore information yooyu yëpp buñ ca jotee coalition buñ ca àggee coalition bi dana def un dispositif d'information parce que tamit nit mënuñu ko jóg rek. jox ko def ko candidat maire te xamuñu est-ce que kii am na l'ancrage social qu'il faut maanaam ay nit dëkk ba mu dëkk nit ñi xam nañ ko fa am nañ fa am naa ñoom jàmm yàgg na yëngu ci élection pour que kooku tamit bu ñu ko falee ëllëg am njàngam ak ay relation dana ko mën a permettre mu porter développement localité boobu donc paramètres yooyu yëpp la ñuy teg sur la balance pour xool ko su ko defee président dana def nag les arbitrages def les choix mais c' est normal dañoo nekk ci ab parti c' normal que ñu am confiance par président parti bi mu tànn jërëjëf euh, Lamine Bara Gaye mbokk yi moom la ñu invité ci rajo réew mi FM seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot 15h 16 moom mooy directeur du service euh, national euh, de l' de l' information pour la santé bokk ci cadre APR yi mais Lamine Bara Gaye dama dégg tamit Abdoulaye Diouf Sarr mi jiite cadre yi ñenn ñi di ko tuumaal ne dafa bëgg mairie bu Ndakaaru bien vrai que defagul benn déclaration ci weewu nag tamit ni ñu koy waxee ak ci presse bi damay lire ñu ne am na ay réunion nocturne yoo xam ne Diouf Sarr ma ngi koy def ci biir. Ndakaaru pour fas yéene waajal élection yi pour gagner commune yëpp lan ngay wax ci loolu. waa xam nga Abdoulaye Diouf Sarr nag acteur politique la te maire la nekk na maire Yoff kon jàpp naa ne tamit tey c'est normal mu xalaat pour xool maire Dakar waxuma loolu la bëgg de waaye am na droit jàpp naa ne ñi ànd ak moom tamit buñ sañoon tey ah Abdoulaye Diouf Sarr nekk maire de Dakar man mii di wax ak wax na ko ci ab journal démb. jàpp naa ne Abdoulaye Diouf mooy meilleur candidat pour coalition parce que booy samp mbër nag da ngay samp mbër moo xam ne am na palmarès. mais moom Abdoulaye Diouf am na palmarès. ku ah. gagné 2014. Hmm. yore sa mairie. Hmm. nekk ministre de la santé am résultat yi mu am jiite cadre parti bi. Hmm. ah quand même jàpp naa ne mënuñu am produit bi gën a wóor boobu pour jaay ko waa Dakar. te xam naa ne moom tamit nag xam naa ne Diouf jàpp nga ne risque la. non risque ah mais élection booy dindi am mbër di samp beneen toujours day am risque. te jàpp naa ne président Macky Sall dana apprécier risque yooyu yëpp le pour et le contre mais jàpp naa ne le candidat bi gën a wóor pour gagner Dakar ci jamono yii ñu toll compte tenu de paramètres yi ma la wax sànq ba léegi c'est Abdoulaye Diouf Sarr. d'accord euh, Lamine Bara Gaye ñu dem ci euh, département bu Mbacké euh, yow élection locale yi ñu jëm au niveau départemental wala au niveau communal. lan ngay xalaat pour bëgg a nekk maire Mbacké wala président conseil départemental. waaw maa ngi nuyu responsable yi Mbacké yëpp ma ci dee doyen Maguette Diakhaté rek tudd naa ñëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu tamit le maire de ma commune natale Bada Seck bu Taïba Cekkeen di nuyu responsable yëpp. man nag euh, bi ma jëlee fonction ba léegi xam nga euh, jàngoro ji dañoo njett moo tax daanaka waxatuma waxu politique sax mënutuma def activité politique. depuis plus de weer ak nii yu teg daanaka li ma génn Dakar bëriwul parce que ministre da lay soxla toujours liggéey bi daf lay soxla waaye li ma jàpp mooy eh, maa ngi jot tamit ay messages yu bëri waa Mbacké ci commune yëpp ñu may woo ne ma lan la yow la ñuy xaar yow la ñuy xaar ah ma leen di wax tamit ne Bara Gaye doomu Mbacké la doomu ba Cekkeen la te élection yi quand même at yi bëriwut waaye am naa ci tuuti expérience wax naa ko démb ci ab journal. waaw non Baara bala ñuy. waaw bala ñuy eggale si kii bi dafa mel ni yow euh, depuis que ñu fal la ba léegi dafa mel ni da nga xaw a euh, taxawaay bi nga amoon ci politique teggi tàngal ñu chaque jour yaa ngi si plateau yi euh, weekend yaa ngi dem Mbàkke yaa ngi wax yaa ngi bàyyi mais léegi gis nañ ne dafa mel ni da nga bëgg a wàññi politique bi lan la. non damaa toll ci toujours waxtu liggéey rek xam nga temps yële ca gannaaw conseil technique laa woon liggéey bi mën naa am gunutoon bëri lool. waaye léegi nag damaa nekk directeur chef de service ci ministère boo xam ne moo yore xeex jàngoro ji fi mu toll nii donc fi ma sénégale yi séentu mooy ma nekk ci sama gannaaw ministre liggéey pour ñu jëlee fi doomu jàngoro ji waaye teewul nag ne ah sama casquette politique suma ko summi te département Mbacké rek moo ma ñor Sénégal rek moo ma ñor liggéeyal président Macky Sall ñi ngi jëm ci ay élections bu ñu ci àggee ah, balaa ñuy àgg. danañ gis Lamine Bara ci langue politique yi dans le département de Mbacké bu boobaa nag ma déglu sama coalition Benno Bokk Yaakaar ak sama kilifa président Macky Sall waaye li ma xam daal mooy jàpp naa ne moom élection moom défaite département Mbacké sa doy être terminé pour président Macky lu tax moom muy am. waaw li am mooy danañ organiser wu incha allah dinaa ci defet bi moom doonul ma ci dellu si wax na ko ba tàyyi ay responsable yoo xam ne dañoo jàpp ne ñooy buur ñooy bu muy daaw ñu déglu ni ñi di def lu leen neex mais loolu jàpp naa ne vraiment c'est dans le passé tey jii yaa a une nouvelle dynamique man responsable yëpp laay waxat moom frère Matar Diop barki démb rek gis nañu ñi ci des maa ngi déggante ak ñoom téléphone que ça soit Cheikh Abdou Mbacké Gaynde Fatma suma xarit la dañuy jotante téléphone mairie département bi yëpp maa ngi leen di nuyu su ma nuyoo doyen El Hadj Ba euh, ak sëñ Moustapha bu Missira nuyu naa ñëpp ak mon grand frère Bada Seck ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu waaye jàpp naa ne quand même bu ñuy xool profil pur profil rek ah département Mbacké man su ma toogoon Dakar ma sax jàpp naa ne danañ ma jël si ne Baara ñëwal dañ laa soxla. Euh, mais da nga yàgg aussi si politique Baara depuis 1990 yaa ngi nekk Mbacké yaa ngi wax yaa ngi yaa ngi bàyyi ba léegi nii euh, maanaam du du koo xam ne daal dafay doog di am. taxawaay ci ci ci ci politique. waaw non loolu moom comme ni ma ko waxee at yi bëriwul waaye am nañ ci tuuti expérience parce que nit nag lu mu yëngu ñaar fukki at benn wala na ci xam tuuti. nee naa leel département Mbacké suma ma jógoon man mën naa takk samay bët. ne la yoon wii mooy dem dëkk sàngam mooy dëkk dem dëkk sàngam. dëkk bu ma dem dëkk bu ma dem mën naa jaar ci ay turu nit. ay nit mën nañ maa tudd. tudd samay waajur léegi candidat nga. non candidat moom buñ ca yeggee balaa mu yàgg tuuti da nga dégg sama proposition waaye fi ñu toll nii comme li ma la wax maa ngi liggéey ci sama ministère waaye nag maa ngi waajal élection yi. weekend bu jot léeg-léeg su ma mënee sàcc tàggu sama ministre su ma bàyyee ma dem ñëwaat te xam nga léegi téléphone moom. wax ak leader yi wax ak leader yi ak responsable yi daanaka jërul sax yow sa déplacement. tey téléphone bi mën nañu may whatsapp bi pour ñu jokkoo ak ñëpp. am naa tamit équipe politique boo xam ne ay jeunes ay femmes ay responsables yu yëngu ci département bi Mbacké loolu ñu ngi may dégg xam nañu ko mhm. damaa ubbi woon permanence te boobu aw ma woon ndomb ak tànk mhm. Mbacké teg fa 16 équipe ko di fa def samay réunion waaw demb rek ci xew-xew àdduna bi ma ñàkk sama benn mag maa ngi koy waat Fallou Sène démb ay 5 heures laa 4 heures laa jóge fii dem Dakar fekkee denc bi dellu siwaat mhm. donc man lu ma am rek Mbacké la Mbàkke moo ko jox. d'accord loo am Mbàkke moo la ko jox mais tamit am na say yeneen euh, naataango quoi ñu bokk ci parti bi. Euh, ay galabo ñoom tim ñoom galabo moom ba mu waxee ne Kandé dafa bëgg nekk maire mbake yàgg na yow tim nga ne danga nga bëgg a nekk nekk maire Mbacke Abdou mbake Ndaw moom tim noonu Matar Diop neen dafa bëgg nekk président conseil départemental mu mel ni daal est-ce que dina neex a lijjanti. mais c'est normal affaire bi moom loolu ñu naan day day pëccëxoo il faut que gaal gi riir kenn ku nekk war ngaa yëngatu c'est normal ñooñu nga tudd ñëpp samay frère lañ. muy Gallo muy Matar Diop muy Abdou Mbacke le maire actuel ñoom ñëpp sumay xarit lañ parce que ñoo bokk Mbacke man suñu grand yàlla na yàlla yokk leeram i bëggee daf ma daan wax politique bu la jaral noonoo kenn mosuma far ak moom politique te fu nekk dama ko faraan fekk Dakar ñuy waxtaan parce que ñoo bokk Mbacké jàpp naa ne balaa ñuy de ak madame euh, Nene Ndiaye Fat Ndiaye HCCT ñoom ñëpp su may xarit lañ waaye nag euh, balaa ñuy àgg ci élection locale yi nag danaa ndëmb ndënd mi moom dana samp dootu yàgg dara te jàpp ne di nga si arrière. ah non non amul leen lu may arrière xam nga yow Abdou Khadre waa Mbacké moom xam nañ kan mooy Bara Gaye man 96 laa la a nekk conseil municipal. 96 waaw. mais est am nga sous la bannière de l'opposition. mais est-ce que Bara am nga programme pour pour ñi ngay wax ñii ñëpp mosuñoo ne boobu nekkaguñu woon conseil municipal même maire bi ba may nekk conseiller municipal boobu nekkagul conseiller municipal maa ko njëkk a nekk conseiller municipal donc man dama am expérience. de la gestion des affaires locales non expérience élection la am ak mm. expérience élu locale dama nekk maire élection locale euh, conseil municipal pendant cinq ans nekk président de commission di liggéey ci conseil municipal di liggéey tamit ci programme de développement pour Mbacké maa ko njëkk a wax xal yi nga xam ne war nañ ko def tey ci Mbacké ndox yi forage yi dëkk yi ñu war a def ay dispensaires donc man dama am programme pour le département de Mbacké xam département bi tamit xam naa ne tey jii jàpp naa ne war nañu def yoon wi nga xam ne tali bi nga xam ne mooy jóge Taïf dem Sadio jàll ba Gerle jàpp naa ne tali bi relier Touba ak Touba Fall war nañ ko defar. dispensaire u Taïba Cekkeen war nañ ko tabaxaat defar ko xàll wi relier Mbàkke Taïba Cekkeen Njumaan liggéey naa ci ba tey jii ñi ngi koy defar. donc man damaa xam doléance département bi jàpp naa ne tey jii mairie Mbàkke dañ ko war a tabaxaat hôtel de ville bu bees poul parce que Mbàkke romb na tey commune bii ñu yore nii hôtel de ville bi tey dispensaire u dañ ko war a toj defaraat ko ñu hôpital bu baax parce que tey Mbàkke ak Touba benn lañu bu ñu tabaxee ñaari hôpital hôpital bu mag Touba war nañ defar beneen mbakke tamit donc loolu laa am man te jàpp naa ni ci collaboration Touba ak Mbàkke tamit dañ cee war a liggéeyaat loolu ñu naan intercommunalité tey élèves yi Touba yëpp Mbàkke la ñuy jàngee donc loolu tey mairie Touba dafa am obligation dugal loxoom ci développement Mbàkke parce que bëri na tey ay sancaan yi ñii dëkk Touba mbake la ñuy fajoo. Mbàkke la ñuy roote si. donc te Touba moo ñu ëpp budget te Touba moo war a boot région bi yëpp. te loolu ba léegi nii jàpp naa ne commune Mbàkke ak commune Touba mosuñoo toog autour d'une table liggéey ci dossier de euh, développement bi. parce que tey benn dëkk lañu waaw. am nga programme pour la ville de naa ko wax moom frère ab laat Ka ak moom frère Abdou inter intercommunalité dafa war a nekk une réalité tey man boo ma waxee foo dëkk dama naan la Touba Mbàkke Touba dafa uuf Mbacké uuf région bi yëpp tey donc département Mbacké da département Touba Mbacké la war a tudd tey au plan administratif. <laughs> jërëjëf euh, Mamadou Lamine euh, Bara Gaye maa ngi lay sant bu baax Abdou Khadre di la gërëm di rafetlu yow tamit vraiment liggéey bu am solo bi ngay def ci secteur bi. te di la encourager di encourager jeunes yëpp yi nga xam ne dañuy yëngu dans le domaine de l'audiovisuel et des médias di sant di gërëm également di renouveler sama engagement derrière sama ministre muy le ministre Abdoulaye Diouf Sarr d'accord léegi euh, euh, Lamine Bara Gaye ñu jeexale rek ci euh, ndax taw yi gis nañ ne inondation yi boo xoolee fenn fu nekk bëri na ndox ci Ndakaaru ak ci yeneen gox yi lan moo ci sa xalaat waaw ma yi nga xam ne actuellement ndox mi yegg na ci seen kër Euh, di leen masow di leen wax tamit ne xam nañ ne quand président Macky Sall euh, du lu ñu ànd ak moom moo tax ñu koy wax mais ñëpp xam nañ ne liggéey bu am solo la def ci xeex mbënn mi. Mhm. bul fàttaliku créé woon nañ fi ministère émerage yi man fa laa nekkoon. Mhm. xam naa milliards yi président Macky Sall def ci investissement en terme d' assainissement tey boo demee Touba ñun bi ñuy jël réew mi 2012 daanaka ndox mi da daan wal bay dugg ci jumaa ji. ci taxawaayu pas-pasu président république ak xalif général yi fi jaar ñi làqoo ak mun muntaxam yi ñuy ñaan mu yàgg fi lool ñooñu ñoo ci accompagner état bi ba tey liggéey nañu assainissement bu mag Touba des na nag naam parce que ndox mi ñëpp ñuy liggéey ci problème climat wax nañ ne dérèglement climatique bi at yi ñu jëm ni ndox mi day gën a bëri waaye teewul quand même ñu ciy liggéey fii ci dakaar xam nga ne quartier yu mel ne tey Dalifort fii da daan fees dal ak ndox route bi da daan dagg jidda caaroy kaw gis nañ lañ fa liggéey mais teewul Kër Massar ba léegi des na ay ay jafe-jafe yi kenn waxul ne réglé nañ lépp mhm. mais nañ nangu ne gouvernement bi def nañ ci lu am solo te dañ loolu la ñuy continuer mhm. tey jii président Macky Sall démb gis nga mu présider réunion d'urgence mhm. ci biir ndox mi palais de la République ministre yëpp toog ak directeur ONAS mu xool fan la liggéey bi toll ma ci gërëm ministre Omar Gueye mi ngi ciy def liggéey bu am solo dans le suivi en tant que ministre des collectivités territoriales mais jàpp naa ne bu ñu yàlla dimbalee Euh, ak at yi ñu jëm ça va prendre du temps nag parce que dañoo toog lu yàgg te investir duñ ci assainissement. d' léegi euh, Lamine Bara Gaye euh, ñu ngi lay sant di la gërëm mais du ñàkk nga félicité Serigne Babacar Sy Mansour ndax nee na moom ñàkku na ñàkk na njabootam wax na ay jege ñaaleem ñu ñàkk wax na tamit Sénégal yi dem leen ñàkk. waaw loolu dañ koy rafetlu bu baax Serigne Babacar vraiment def na ci liggéey bu am solo ñu ngi koy sant bu baax Serigne Mountakha noonu la defoon lancé appel. vraiment ñu ngi koy sant di ko gërëm di ñaan kilifa diine yëpp ñu def noonu ñun ñii ci njaareem fan yële ci ginnaaw sëñ Moustapha Lakaram dafa ñàkku devant le gouverneur ak ñëpp joxe exemple te loolu président Rabli moo ko njëkkee salle de banquets yëkkati loxoom joxe ñàkk ko ak ministre yëpp ñàkku kon ñàkku gi moom fi mu toll nii Sénégal yëpp gëm nañ ko gouvernement bi mi ngi góorgóorlu pour que ñàkk yi ñëpp mën cee jot. d' léegi euh, lan ngay tàggoo euh, looy jeexalee ci ci SNEIPS wala lan ngay. waaw di sant di gërëm rek di sant tamit liggéey liggéeykatu SNEIPS yi nga xam ne ñoom laa bokkat su ma ci tuddee le doyen yi bu gisee rek tudd naa ñëpp. Mhm. ñu ngi liggéeyal vraiment ñu ngi góor góorlu bu ñu yàlla dimbalee ci semaine yi ak weer yi di ñëw da ngeen gis véritablement que le SNEIPS a pris une nouvelle envergure. incha allah jërëjëf euh, moom Lamine Bara jërëjëf euh, Mamadou Lamine Bara Gaye euh, mbokk yi moom la ñu invité woon ci seen émission pencum réew mi ci rajo réew mi FM muy émission boo xam ne samedi bu jot lay am 15 heures jàpp 16 heures Lamine Bara Gaye nag moom mu bokk ci cadre APR yi nekk responsable politique ci département bu Mbacké waaye tamit nekk directeur du service. Euh, de l'éducation et de l'information pour la santé ci ministère bi ñu dénk wàllum wér gi yaram euh, gi mbokk yéen ñi nga xam ne yéen doon déglu rajo réew mi FM Abdou Khadre Seck moo nekkoon ci kaddu gi euh, Mamadou Diaw jàll moo nekkoon ci wàllu machine bi mbokk yi ñu leen di jox dig daje samedi bi nga xam ne nag moom la ñu daal di dëgmal ci benn émission pencum réew mi jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm.